salaamaaleykum mbokk internet jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu fas yéene dikk ak yéen ci xibaar yi ñeel jàngoroy coronavirus du covid 19 tey ci gaaw di fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn test yi nga xam ne def nañ ko bésub tey bi juróom-ñett moo ci positif juróom ñett nit kon amaat nañ jàngoro ji ñu naan coronavirus euh, ñett yi nag ay cas de contact suivi la maanaam ay nit yoo xam ne am nañ jàngoro ji ba ba xam ko ñoo ko jotoon walla ñoo xam ne jot nañ saafonte ak ñoom am na nag 5 cas communautaire maanaam juróomi cas transmission communautaire mooy wàll yi nga xam ne day am si biir nit ñi te sax du ñu xam wàll yooyu nan la demee transmission communautaire yooyu nag euh, mu ngi amee yëmbal euh, cité Soprim euh, Touba Médina ak Kër Massar ba léegi am na fukki nit ak ñett yoo xam ne ñoom bi ñu leen contrôlé tey dañoo négatif kon ñooñu wér nañ amatuñu jàngoro ji bi fi jàngoro ji duggee nag ba bésub tey bi Sénégal mu ngi ci ñetti téeméer ak juróom fukki cas yoo xam ne ñoom lañ déclaré. mu am ci euh, ñaar téeméer ak fukk ak benn yoo xam ne wér nañ mu am si ñetti nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan am ci koo xam ne dañ ko évacué maanaam dañ koo delloo dëkkam gannaaw bi kay mbokkam sako euh, fi mu nekk nii nag am na téeméer ak fanweer ak juróom yoo xam ne ñu ngi sous traitement maanaam ñu ngi saytu seen wér-gi-yaram ci l'hôpital yi si biir réew mi bu ñu xoolee tolluwaayu jàngoro bi nag si àdduna bi million euh, millions deux cent cinquante six mille huit cent quarante quatre am nañ lii di coronavirus bi euh, mu am ci cinq cent soixante onze mille huit cent cinquante et un yoo xam ne jot nañ cee wér wante nag am na am na cent cinquante quatre mille trois cent trente yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan euh, ñii ñu naan États-Unis nag ñoom ñoo gën a sonn ci feebar bi topp ci réew mi ñu wax Italie lii leen indi loon tey mbokk internet ci ay xibaar leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf. bonjour amis internautes de Jammj Info bienvenue aux informations concernant le coronavirus Covid-19 en ce samedi 18 avril 2020 sur 226 tests réalisés 8 sont positifs il s'agit de 3 cas contacts suivis et 5 cas issus de la transmission communautaire les transmissions communautaires proviennent euh, des localités de Yeumbeul Cité Soprim Touba euh, Médina et Keur Massar 13 euh, patients ont été contrôlés négatifs aujourd'hui et déclarés guéris Euh, à ce jour, le Sénégal compte 350 cas déclarés positifs, dont 221 guéris, 3 décédés, 1 évacué et 135 actuellement sous traitement. Dans le monde, 2 256 844 personnes ont contracté le coronavirus, 571 851 sont guéris et 154 350 sont malheureusement décédés. Les États-Unis restent